li ñu woote nag tey mooy xamal nit ñi ne kat suñuy këyit dañ ne dañ koy dañu koy delloo wax ne ñun duñu bokk ci ñiy xëccoo mairie bi ngir ñetti mbir benn bi dañu wax ni ah, tolloo gi ñu war a tollale góor ak jigéen ci liste yi ñun kat respecté wuñ loolu dafa mel ni ñun dañ ne ñun seeni jigéen ñi moom ngeen ëppal ci góor ñi beneen bi ñu ne ñun liste proportionnelle bi maanaam bi ñu joxe euh, ca suppléant ya dañu fa defee fukk ak juróom te ñaar fukk ak benn la ñu waroon a joxe te ñun nag loolu di lu ñu jaaxal parce que ñun dañu wàññi jox leen ñoom ñu waññi ñaari yoon ba noppi doog a denc après ñu ñëwaat tey nañu dafa manqué loolu daal lu ñu jaaxal ñu ne ñu itam engagement individuel yi maanaam ñi nga xamee ne wax nañu leen ne da ngeen di bokk ci équipe municipale bi suñu gañee ñoom ñu wax ne ñun bëgg nañu bokk. loolu itam boo ko xoolee dañu wax ni la ñu joxe ci dossier bokkul ak la nekk ca liste ba xam nga nag ab liste moom nekkul mbir moo xamee ne mën nañ ca sukkandikoo rek ndax euh, li ñuy wax tung ne du teew ñun ñuy natt si ay ay bant soo amee ay dossier dossiers yi ngay xool wàññi ko la nekk ca dossier nga listé ko kon euh, loolu muy nag loo xamee ne lu ñu jaaxal la itam kon daal ñu ngi wax ni ñun ñi nga xamee ne ñun équipe bi nga xamee ne jàppoon nañ ni danañ andi Mbàkke ak euh, dëggu dinañ fi andi ak jub dinañ fi andi loo xamee ni dana tax suñu dëkk bi dellu mel na mu waroon a mel ndax dëkk bi dafa mas nekk dëkk buy jiitu ci dëkki Sénégal yi ke mësul des ginnaaw wante li ñu seetlu mooy des na desal nañ ko ginnaaw lool waaye ñun duñ ko nangu engagé wu nañ ak xale yi engagé wu nañ ak jigéen ñi engagé wu nañ ak mag ñi engagé wu nañu ak ndaw yi pour suñu dëkk bi ñu faale ko suñu dëkk bi nekk fa mu war a nekk ñu wax ni bu loolu amee nag ñoom ñu wax lii kon duñu bàyyi mu sedd dinañ dem ba ci yoon gannaaw bala ñoo dem ci yoon itam dinañ laaj suñu préfet mu may ñu ñu accéder ci dossier yi ba ñu xool ko wàññi ko wàññaat ko ba am ci lu ñu leer boo ko defee nag dinañ yóbbu affaire bi moom ci justice muy cour d'appel bu lu ñu cour dàppel may nag ñun ñu jël loola ndax ñun nitu yoon lañu yoon lañu gëm jàpp nañ ne yoon mooy liy doxal am réew bu ko ñëpp respecté wante nag na ko ñëpp respecté buñ def yoon pour ñii def beneen yoon pour ñële loolu moom duñ ko d'accord kon daal lu ñuy yoon may danañ jàpp ca loola wante itam bu fekkee nii réponse politique maanaam tontu politique war na ci loo xam ne jëfu politique la kon tontu politique boobu incha allahu dinañ ko andi.